ok incha allah ñu ngi war a jël tey aaye quatre-vingt ci suuratu Nahl wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين mbokk ñu ngi nii ci mujj weeru koor tey mooy sunu ñaar fukkeelu fan ak juróom-ñeent ca la nga xamee ne donc penku jant ak sowu jant yépp dëppoo nañ ci ñàkkul ay xabaar yoo xam ne yépp nit ñi ñu ngi koy dégg te mooy depuis que internet xew ba léegi fitna moom dal na ci jullit ñi mbokk yi ñu ngi takk lu jege ñaar fukki at ak juróom mi ngi nii mësuñu am benn weer bu ñu woor fanweeri fan lu dul am na fuñ ni gis nañ ko foofee almuhim daal li ñu bëgg a wax moo di ne ne tey penku ba sowu ndeyjoor ba càmmooñ ci li ñu xam ci planète terre ñëpp dëppoo nañ ne ah tey mu ñaar fukk juróom-ñeent lu dul xabaar bu jóge Mali xabaar boobu nag doomu aadama yi dañ ca séddili ko ñam doy ñu doy mu doy leen fari la alhamdu ñi jàpp yeneen considération yu bari yi ñu takk ba xabaar yu doy loo nit ñu continuer seeni koor fari la alhamdu ñi ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala nangul ñëpp ala kulli xaal kon ñu ngi wéy ci suñu tafsir bu mujj ci li nga xamante ni mooy shahru ramadan di jël suñu ay ak juróom ñetti fukk bi ñu ngi noonu ak Cheikh Ousmane waaw أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله يعلم yàlla day def na ñeel leen ci seen dëkkuwaay yi lii di ay dal ay ay daluwaay yi seen kër ya mu defal leen ci ay daluwaay wa jaala lakum min juluudi al an'aami buyuta defal na leen it ca la nga xam ne mooy dëri jurga la nga xam ne muy ay néeg yu ngeen di dëkkee tastaxif tastaxifuunaha yoo xam ne da ngeen fekk mu woyof ci yéen lool yawma za'nikum bis da ngeen di jóg di dem di màngi ñu ngi noonu wa yow wa yawma iqamatikum ak bis ba ngeen di dal fa nga xam ne fa ngeen bëgg a dali wa min aswaafiha noonu la defe it ca leen ya nekk ca xar ya wa awbaariha ak la nga xam ne mooy karaw ya nekk ci gileem ya wa ashariha ak karaw ya nekk ci bëy ya ak nag ya asaasan defal na leen ci la nga xam ne nii mooy ay njëfandukaay wa mataan ila xiin ak loo xam ne da ngeen cay xéewloo ba jëmmi jamono wallahu jaala lakum yàlla def na ba tey ñeel leen mimma xalaqu zilaala ci la nga xam ne bind na ko mu defal leen ci ay ker wa jaala lakum min aljibaali aknaana mu defal leen ci biir montagne yi ay xunti te mooy ay grotte wa jaala lakum sarabil mu defal leen it la nga xam ne mooy ay yére taqiikum alxar yoo xam ne dana leen fegal tàngaay wa sarabil ak yeneen yére taqiikum ba'sakum yu leen di fegal seen ay muy gilet yi ngeen di sol bi ngeen dee xeex kadalika yutimmu nicmatahu alaykum naka nii lay mottile ay xéewalam ci yéen laallakum tuslimuun ngir ngeen jébbalul seen boroom fa in tawallaw buñ dëddoo ne gannaaw nag fa innama alayka albalaax balaaxul mubin dara waru la lu dul jottali boo xam ne bu leer la yaarifuuna nimat allah ñoom day xam nañu xéewalu yàlla summa yunkiruunaha gannaaw ba nag ñu bëgg koo fakk ba koo sib ba koo weddi wa aktaruhum alkafirun ci li ëpp ci ñoom day ay yéeféer la ñu mi ngi noonu mbokk saar bi tudd nañ ko saaru xéewal doomu aadama lim jàpp mooy xéewal mooy laka bett waaye li ëpp ci nit ñi lañ judd fekk ko fi duñu xam xéewalum lu mu toll dana ma fàttali ku mel ni Seydul Xutbu rahimahullah prison bi ñu nekkoon nga xam ne nee na xaw ma ñaata at gisuñu jant mais nee na keroog bi mu njëkkee génn prison ba jàkkaarloog jant bi dafa yéemu ci yàlla mi ngi noonu ak xiiwal gu rëy googu nga xam ne moom dund na ba kii mosu ko sax bàyyi xel loolu benn misaal la ci rek waaye bokk na ci mbokk jullit kaw suuf ñaate million d'espèces ñoo fi nekk gaynde yaa nga ñay yaa nga golo yaa nga suñu borom yàlla ñun doomu aadama la tànn may leen pexe ñu mën a defar ay kër yu ñuy dëkkee ñu ngi noonu su ko defee ñeneen ñi taw yaa ngi sotti ko seen kaw ngelaw gi seen kaw naaj gi seen kaw waaye doomu aadama yàlla may na ko mu defar ay pexe ba fu mu mën a nekk defar fa la nga xam ne mooy ay dëkkuwaay loolee ne doon ci ñax la ci ban la ba tey ñu yegsi ci bâtiment moderne yi ñuy am nga xam ne amoon na depuis avant alquran di wàcc nga xam ne yàlla mu ne moo ñu ko defaral na am mbokk jullit xoolal keroog bi waa ji bëgg a tabax kër la muy jëkk a commandé mooy suuf kan moo bind suuf gannaaw ba da ngay gis ciment boobu fu mu jóge su ko sim fu ñu koy jëlee xanaa du ci suuf nga jóge foofu fer bi fu mu jóge xanaa du suuf ndox ma ñuy jaxase xanaa du suuf mooy lépp luy dem ci bâtiment bi fondement ba peinture lépp yàlla moo ñu ko may kon yàlla moo ñu defal loolu mu defal ñu kër yi muy daluwaay doomu aadama heure boo duggee sa kër nga sentir ne yaa ngi ci jàmm mucc nga lu la dàq ci àll bi tiital la nga riir wuti sa kër boo duggee sa kër rek jàpp nga ne tu es en sécurité mucc nga donte ne ne kër yooyu tamit bokk na la koy muccal mooy waa kër ga nekk ci jàmm loolu moo tax bokk na lu grave ay nit dëkk ba pare nekk ñu jàmm ndax kër gi moo waroon a nekk daluwaay fu waay amee problème bu duggee ci kër gi rek jeex na xam naa nekk na jàmm amaa nag bu problème jógee ci kër gi musiba la sunu mag Abu Tahir dem ba Diop yal na yàlla dolli ko wér day wax ne tey jii soxna si nga xam ne moo war a dalal jëkkëram ca suñu borom moo ñu ko wax jaala lakum min anfusikum azwajan li taskunu ilayha ngir ngeen di dala ci moom lu waral loolu ndax islam dafa prévoir woon góor moom la génne liggéey jigéen moom toog ci kër ga xaar ko bu ko defee góor bu demee coono bu mu mën a dikkee ak ku mën a xulool ku mën a jàppanteel fitna bu mu mën a doon su ñëwee ci kër gi rek soxna si dalal ko moom nag ndeysaan mu ne ki nga xam ne buñ la tëj tëggee pes ca mbedd ma soo ñëwee moo la koy raayal su dee moom moo la tëgg pes ku la koy raayal yaa ngi dégg loolu mu wax ni mooy jigéen bi fitnaal jëkkëram donte ne yow it sa soxna yi kër gi dafa war a nekk sakanan waroon na balaa gën a yëg jàmm ak bànneex rek yow nga ñëw ci kër gi am na nag góor yoo xam ne c'est le contraire buñ duggee ci kër gi rek day mel ni gendarme bi moo fi dugg ci njaboot geeg ci ñëpp mbokk loolu baaxut kër sakkanan la daluwaay la jàmm la war a doon jaale la ko min an min buyutukum sakkana gannaaw ba suñu boroom wërsëgal ñu arab yi nga xam nge ñoo pël yi Sénégal ñoo yem dañuy migrer rek léeg-léeg ñu dëkk fii dëkk fii dëkk fii dañuy jël dari gileem yi defar ci ay tente tente yoo xam ne nii fi ñu dëkk mën nañ ko tàllal mu nekk ay xayma ñu dëkki ko soo bëggee tuxu da ngay lem ba mu jëkk rek teg si kaw gileem ngeen dem fu ngeen yegg ci àll bi tàllal daal di dëkk ñu ngi noonu loolu di xéewal bu ñu yàlla subhanahu wa taala defal borom boobu subhanahu wa taala mun a it da ngay gis ne leen bi génn ci xar yi ak karaw yi génn ci gileem yeeg yépp yéen a ngi ko jël di ci defal ay asaas lu mel ne basang yi ngeen di def seeni njegenaay yi la ngeen di jëfandikoo ci yenn yére yi ngeen ciy defar am yi ngeen ciy defar ay façon ay dàll ila axiri waaye loolu it nekk lu ngeen di xéewloo ba jëmmi jamono ca it jullit bañ a fàtte loolu mbokk àdduna loo ci mën a xéewloo am na fu mu yem sa immeuble bi lii nga immeuble bi sonn nga ci lool investir yi des centaines de millions wote bi nga def ko noonu meuble naka noonu waaye bàyyil xel lii dafa am fu mu yem bis dana ñëw nga génn ko dem dem feneen am déet dem ci lu ñuy tudde ba mel moo tax rasul sallallahu alayhi wasallam daan ñu wax naan aksiru min hazimi lazzat bari leen di fàttali ko liy dagg xéewal yi loolu day tax ba xéewal yi du la itteel ba nga fàtte jaamu yàlla mu ngi noonu heure booy fàttali ko dee ah taar bi de bëri na waaye bis dana ñëw sama njaboot wàcce ma yóbbu ma ci margo gannaaw gas suuf suul ma immeuble léegi des yi loolee ku koy bàyyi xel du la yóbbaale ba fàtte loola jaamu yàlla mataan ilahin suñu borom wëlbatiku it ne moo ñu defal ci lim bind ay ker mbaa ko ker gën a ndakaaru xamul luy ker waaye ñiy tukki ci àll bi ñiy bay ci ci ci tool yi kay dem ba mu ñu gis garab goo xam ne nii ay keram dana presque muur jàkka ji sedd guy nga ñëw daal di toog kerlu ñu noonu yéen a ngi des ci histoire de l'Afrique bu ñuy wax sous l'arbre à palabre dëkk boo gis seen pénc ma ñuy daje dañuy dem ci garab gu mag ñu def ko ci digg dëkk ba su ko defee bu ngoon jotee dëkk bi yépp ca la ñuy daje mbokk loolu xéewalu yàlla la mooy zilaan kër yi yàlla defal doomu aadama yi mu dem ci montagne yi defal ñu ci ay grotte yaa ngi dégg rasul sallallahu alayhi wasallam keroog bi ko jibril di feeñu mi ngi nekkoon ci gaaru xira benn grotte bu nekk ci montagne yi boo xam ne bu demoon makka te ñëwoon la ko fa la nekkoon ba jibril fekk ko foofu keroog bi muy gàddaaye makka di dem madina ma nga dem gaaru sawr ci grotte sawru fala làqu mag Aboubacar pendant trois jours waa Màkka di ko wër gisuñu ko naka noonu it boo demee ci dëkk arab yi dangay gis ay montagnes yoo xam ne yàlla da caa gas ay néeg gas ay néeg ba am na ci ñoo xam ne seen dëkk yépp mooy montagne bi la ñuy dëkkee gis giru arab goo xam ne ci ay montagne la ñuy dëkkee famille bi ñu nga ca pax bi famille bee ña nga fee famille bee ña nga fee en cycle ci sécurité mi ngi noonu grotte yooyu am na yeneen xéewal yu ci nekk suñu borom yàlla subhanahu wa taala léeg-léeg forme ba mu koy deferee day tax ba buy taw ndox yépp day dugg ci biir te bu duggee ci biir day nekk benn château d'eau boo xam ni mën na fa nekk lu yàgg yàgg ba nga xamee ne arab yi teen yi ñu daan am ak su néew su masaan dem ba digg cooroon nga xam ni tàngaay bi tar na teen yu bari fer ci montagne yooyu lañ daan dem ndax ndox mi fay nekk ci suuf dafay nekk perong ci kaw mi ngi couvriru ndox ma mën na fa def un an du def benn problème loolu di xiiwal goo xam ne suñu borom yàlla defal nañu ko ci biir montagne yooyu jaale lakum min aljibali ak naana gannaaw ba suñu borom mu ne yéen doomu aadama yi laa defal la nga xam ne muy ay yére ay yére ma ndax gars yi mas ngeen gis gaynde gu sol ab costume wala ab grand boubou déedéet ñay nag déedéet golo nag déedéet ñun doomu aadama la yàlla may yére yére yoo xam ne danañu fegal tàngaay lu tax tuddul sedd te bopp saar ba la ñu tuddoon sedd ba mi ngi noonu mooy wal anaam xalaqa lakum fiha dif mooy yàlla may na leen lu ngeen di sol ngir protéger wu ci sedd rawatina gilet cuir li nga xam ne mooy cuir yi gars yi sol nga xam ne moo gën a protéger sedd ñu ngi koy jële ci bàyyi may amma fi mun a taqikumul xar te it ku ne xam na ne ne soleil bu piqué rawatina Arabie saoudite dafay quarante cinq cinquante degré yére bi nga sol da lay protéger ci tàngaay yu tar woowu rawatina nag li nga xam ne mooy yére bu weex ndax yére bu weex day rejeter chaleur ngi noonu bu dee yére bu bleu wala bu ñuul day attirer chaleur ba demoon tey Europe lu ci bëri jamonoy sedd yooyu dañuy gën a préféré amma bu dee yére bu weex day rejeter yooyu day rejeter chaleur bi te la yonent bi alei salam doon wax naan day leen solo seen yére yu weex moo gën ci seen yére ila axiri yàlla moo ñu may yére yooyu may ñu it yeneen yére yoo xam ne danañu protéger ci suñu ay te loolu mbokk mooy li ñuy tuddee juré yeeg yu demee noonu ki ko yàlla jëkk a xelal mooy ibrahima alayhi salaam wa qaddir fi sard yamal sabiqat nda daawuda alayhi salaam moom la yàlla jëkk a xelal ci ne ko daawuda na nga defal juré xelal ko mu mbubb boo xam ne da nga koy jël sol ko tëj ko nga xam ne ku la cor jaasi du dugg ku la cor xeej du dugg rasul sallallahu alayhi wasallam amoon na ci ñaar loolu kon di xéewal ak yàlla gilet yooyee mujj nañ ko amélioré ba nga xamee ni da ngay gis jamono ñu daan xeex ay épée ay jaasi am na casque yu ñuy sol mu wàcc ba ci suuf sol gilet boo xam ne day dem ba presque say fi ngay takk montre ba nga xamee ne soldat bi xeex doo gis si moom lu dul ay bëtam ak yu deme noonu loolu suñu borom mu ne maa leen ko defal borom boobu it subhanahu wa taala mu ne nii lay mottalee ay xéewalam ci ñun mi ngi noonu mottali ay xéewalam ci ñun ngir doomu aadama yi jébbalul ko mbokk yàlla lim bëggoon mooy doomu aadama yéeg ne moo leen bind de un yéeg ne mboolem xéewal ci moom ci moom la jóge muy ñaar su ko defee ñépp jébbalul ko ay nangul ko mu ngi noonu wala fii ñoo naan ku la abal ay bët nga xool fa ko neex waaw gars yi yàlla moo ñuy bë may ay bët di may ñu nopp may ñu tànk may ñu nàngam kon it naka noonu xi lim ñu defal dañ ko war a jébbalul ca mooy nangul ko wala fii dañ cay teg naan ku ëmb sa sanqal ëmb sa kersa te mooy nit ki nga xam ne fu mu toll ji la defal teraanga da nga rus mu sant nga bañ a def yàlla nag moom moo ñu sus ci teraanga moom ñu ci teraanga di sotti ay teraangam guddeeg bëccëg loolu tax la'allakum tuslimun wala tax julit bu yëgee ndigal bu jóge ci boromam du def lu dul def tere bu jóge ci boromam bàyyi rek loolu mooy islaam suñu borom jalla wa ala nag ne yow yenent bi bu dee da ngaa waaraate ñu bañ wane gannaaw na sa xel dal santuma la nga fexe ba ñoom ñépp ñu dugg ci ngëm li ma la sant mooy jottalil kese fa ma ala rasul ila albalaax soo jottalee daal yow sa jaan wàccu na sa jaan wàcc na li ci des moom sama mbir la ak ñoom borom bi ne nag li ëpp ci nit ñi xam nañu xéewali yàlla ci ci ñoom waaye teewul ñu koy weddi di ko askane keneen bala ëpp ci ñoom da ngay gis ne ay yéeféer lañu moo ko kaafir mooy kuy suul moo tax kaafir lañu tudd leen dañuy suul ay dañuy suul njekk mooy xam ne lii yàlla dong ko man ba pare nga sante ko keneen mi ngi noonu yàlla dong nga mën xéewal gi ba pare nga sante ko keneen mi ngi noonu Cheikh Ousmane
ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يهزم للذين كفروا ثم لا يهزم للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين يرون عذاب ربهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء قالوا ربنا هؤلاء شركاءنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون بارك الله فيكم ويوم نبعث من كل أمة شهيدا bis ma ñuy génne ci bépp xeet aji seede summa laa yuzanu lilladina kafaru gannaaw ba duñ jox ndigal ña nga xam ne dañooy weddi wala hum yustatabuun kenn du sàkku ci ñoom it ñu joxe ak jéggulu wa ida raa alladina zalamu alazab heure bu demee ba tooñkat yi gis mbugal ma fala yuxafafu anhum kenn du ko woyofal ci ñoom wala hum yunzaruun ci kenn du leen xaare wa ida raa alladina ashraku shurakaahum heure bu demee ba gis ña doon bokkaale ña nga xam ne jàppoon nañu leen def leen ñi ñu bokkaale ak yàlla qaalu rabbana haulaai shurakauna ñu ne ay yàlla ñii de mooy suñu bokkaale allazina kunna nad'u min dunik yañ doon woo gannaaw yow fa alqaw ilayhim alqawl ñooñu sànni ci ñoom kaddu ga innakum la kaazibun ne yéen day ay fenkat ngeen wa alqaw ila allah yawma idin salam noonu la ñuy sànni jëme ca yàlla bisu keroog ak jébbalu wa dalla anhum ma kaanu yaftaruun noonu lay sànkoo ci ñoom lañ nekkoon di ko dóoral mi ngi noonu mbokk kon suñu borom mi ngi ñuy nettali bis mi ngi ñëw mu dajale xeet yépp xawmu nuux ba suñu xeet ku nekk mu génne yonent bi mu yónni woon ci yow indi suñu yonent mu ñëw war ñoo seede mu ne bu keroogee yéeféer yi daan laaj yàlla ndigal yàlla delloo ñu àdduna ñu man laa jaamu loolu mbokk kenn du leen ko nangul daan jéem it joxe ay jéggalu ay yàlla ñun xamuñu woon ay yàlla nangam waaye jéggalu yooyu it kenn du leen ko nangul abadan suñu borom wax ñu it ne alaxira bu ñu indee safara ba yéeféer yépp a jàkkaarloo ak moom nee na kenn du leen waye falal seen mbugal ca kenn du leen xaare mbokk julit àdduna lu fi mën a nekk dafay dellu gannaaw day dem ba yàgg muy dellu gannaaw amma bu dee alaxira c'est le contraire àjjana day gën a neex safara day gën a tàng day gën a ñàng yàggaay buñ fa yàgg du du tax mukk ñu miin ko wala mu woyof ci ñoom ndax bés bu nekk ñu indi degré bu bokkul ak degré démb ba laa yuxaffafu anhum suñu borom mu ne dana nattu bokkaalikat yi képp ko doon wax yaa cheikh diw yaa yàlla diw képp ko doon woo keneen di ko bokkaaleeg yàlla yàlla dana la dajaleeg moom yowmal qiyaama su ko defee ñu ne yàlla ah yàlla ñiñ yaakaaroon gannaaw yow de ñi ngi nii su ko defee ñooñu delloo leen kaddu ga ne leen yéen de da ngeen di fen ca fen yooyu su doonte ne ne ay yonent lañ doon jaamu ay nit ñu baax lañ doon jaamu loolu tax ñu ne leen da ngeen di fen jaamuwu leen ñu woon seen bakkan moo leen dugaloon seytaana taaralal leen ñun mus ñu yëg ne yéen yéen nga ñuy jaamu li ngeen di wax dara amu ci loolu la borom bi di nettali ne istabarra allazina tubi'u min allazina taba'u yowmal qiyaama képp koo xam ne dañ koo toppoon ci lu bokkul ak ndigali yàlla yaakaaroon ko ci gannaaw yàlla day dañ ba mat sëkk ci ñépp ñoo xamee ni nii dañoo yaakaaroon ci moom loolu mi ngi noonu suñu borom yàlla subhanahu wa taala ne bu keroogee nag la ñépp di jébbalul yàlla daa di bëgg a indi ak jàmmoo ak juboo ak jébbalul ko bu ko defee mu daal di réer lépp loo xam ne ñu ngi ko doon dooral loolu nag mbokk suñu borom bu ñu koy wax fii ca demaguñu day wañe na yow borom xel góor góor lool ngalla way booy dem àllaaxira bu fa yóbbaale lu dul yaakaar yàlla yi kese yal na yàlla yombal ko ci ñun naam
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يكذبون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
بارك الله فيكم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ñi nga xam ne day dañoo weddi di fegaate ci yoonu yàlla zidnaahum azaban fawqa al azab dañ leen dolli mbugal ca kaw mbugal bima kaanu yufsiduun ca la nga xam ne nekkoon nañ ko nekk di ko yàq wa yawma nab'asu fi kulli ummatin shahidan alayhim min anfusihim bis ba ñuy génne ci bépp xeet aji seede ci seen kaw bu bokk ci seeni bakkan wa ji'na bika shahidan ala haula yow ñu indi la ngay aji seede ci kaw ñii wa nazzalna alayka alkitaba tibyanan li kulli shay'in nii de lañ wàccee ci yow téere bi muy leeral ci ñeel lépp lu mën a doon wa hudan wa rahma mu nekkit lii di njub ak yërmande wa bushra lil muslimin nekkit aji luy bégal ñeel julit ñi inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan yàlla de mi ngi digle njekk mi ngi digle ak rafetal wa ita'i zil qurba mi ngi digle jox jege ñaale ya wa yanha anil fahsha'i wal munkari wal baghi mi ngi tere lépp loo xam ne ay ñaawteef la lépp loo xam ne lu ñu sib la lépp loo xam ne nii ak bew la ya'izukum la'allakum tazakkaruun mi ngi leen di xupp ngir ngeen doon ñuy fàttaliku mi ngi noonu mbokk suñu boroom day wax ni ñi nga xam ne ci kaw suuf dañoo nekkoon ay yéeféer mu nekk dili bu grave waaye yëmuñu ci ñuy jóg képp ku bëgg a dugg ci diina ñu gàllankoor la suñu borom nee na danaa leen teg mbugal ci kaw yi mbugal ci li ñu nekkoon di ko yàq te it mbokk julit gis nañu ni mbugal rek doyoon na ca safara annoor safara kese waaye gannaaw safara yàlla am na fa yeneen i mbugal lu mel ne xamim te ndox moo xam ni tàngaayam yàlla moo ko xam lañuy borom bi wax nee na seen mbubb ya godron lay doon sunu borom subhanahu wa taala nee na dañ leen fa nandal gassaq suñu borom yàlla subhanahu wa taala nee na yax moom mi ngi foofu di gaz genre ammoniac suñu borom yàlla mi ngi naan maqamiun min hadid bal da yeneen malaaka yi di dóor ala kulli xaal ku nekk ak la méngoo woon la nga defoon ci mbon suñu borom noonu la lay doublé la sa mbugal waaye mbokk mbir bu mu mën a doon ñoo ngi koy xamee par son contraire mooy la wuuteeg moom lañ koy xamee dalay wañit ni jullit bi gëm yàlla di jaamu yàlla jullit bu baax a ngoog waaye cay bu ca boole nag jóg di woote ci yoonu yàlla di tere ak mooy yàlla mbokk ko mel ni yàlla day double ay payam yawmal qiyaama looloo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañuy wax ne képp ko woote ci njub yàlla dana ko jox payam jox ko payu ñépp ñam ca woo ca du wàññi ca ñoom seen pay ci dara loolu kon mbokk mi ngi noonu borom bi di baamuwaat li mu waxoon sànq bis mi ngi ñëw mu woo xeet bu nekk kam yónni woon ci ñoom muy seen seede mu indi suñu yonent muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour mu ñëw seede xeet bi seede lan seede ne ay yàlla lan ma yónni woon day jottali naa leen ko aay bu mel nii ñëw na ca suuf ca suuratu nisa yonent bi alayhi salaam ni ibnu masud na ko jàngal alquran ibnu masud di jàng ba yëg sa ca aaya boobee yonent bi alayhi salaam na ko doy na ibnu masud nee na maa ngi gis bët yi mi ngi taa ndax xam ne ne bu keroogee li ëpp ci xeetam dañuy dañuy wuute ak moom ca ko wuuteeg moom safara nga jëm wa man yushaaq yushaaqi rasul من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونسليه جهنم وساءت مصيرا بكروجي بو يالا و اب يوننتم مو نيو اي خيت بي ميغي ني جوتي لي nga lima la waxon ah yalla jotili na mëno ko sa jaan wàcc na léegi nag ñu commencé di xool xeet bi kenn par kenn ndax bokkoon nga ci ñi wuy ji jottali bi yonente bi sallallahu alayhi wasallam suñu borom mu ne bu keroogee képp ku juuyoog la yonente bi doon woote jëm nee na danaa la féetale fa nga bëgg a féetale dugal la sawara nga sax fa ba faw loolu mbokk ñu bàyyi ci xel gàllawaay bu ñu dara taxa wuuteeg yonente yàlla bi borom bi mu ne moo wàcce ci moom ab téere muy leer muy leeral lu mu mën a doon tibyaanan li kulli shay lépp loo xam ne doomu aadama yi aajowoon nañ ko ci seen wàllu di diine ak luy tax seen àdduna rafet téere yàlla bi leeral na ko leeral nañu nu ñuy wéecale suñu borom leeral nañu nu ñuy jëflanteeg way jur yi njaboot gi way dencante yi problème bu amee naka lañ ko war a attee suñu borom bàyyiwul dara ci téere bi ma farratna mi ngi noon fil kitab min shay ca loolee da ngay gis ne bokk na ci yit téere bu mag bii nga xam ne da koo matale gannaaw la nga xam ne mooy lahul mahfud borom bi it ne téere baa ngi noon di leeral waaye leeral bi pour lan mooy hudan la njub la mbokk dans tous les pays du monde soo demee ba la ñu laa jox permis de conduire am na luñ lay jàngaloo code dañ lay paasaloo code ba nga xam tey boo yoroon oto tey règlement bi nekk ci tari bi naka la demee soo demee ba passé réussir ñuy dooga nag dugg ak yow ci oto bi xool ndax mën ngaa dawalam déet kon alquran mi ngi noonu dafa nekk benn règle code bu yàlla wàcce du rek nag ngir jullit ñi di ko jàng guddeeg bëccëg waaye déedéet jullit ñi daal di jóg nag jaar ci jëfe ko muy hudan hudan la boo xam ne it lépp yërmande la yàlla diggaluñu lu dul loo xam ne suñu yërmande moo ca nekk hudan wa rahma waaye it mu alquran ñëw ne di béggal jullit ñi mbokk fari alhamdu ñun ñi ngi suñu jàmm mais bari na ay jullit tey ay bomb mi ngi dal seen kaw bari na ay jullit tey ñi ngi tëdd ci kaso yi bari na jullit tey ñi ngi tëdd lalu hôpital ci yaakaaru ñu ne dañ fa jóge ci bari na ay jullit tey ñi ngi nekk ci ay xiif yu tar ay ñàkk yu tar waaye suñu borom mu ne bég leen adduna dafa gàtt képp ku dee yàlla ngëm soo ñëwee àjjana moo lay xaar loolu mbokk benn trésor la boo xam ne moo ëpp trésor yi Amérique ak Russie ré- réunis te nit am ko ci xolam yëg ne man lii ma nekk ay jaar-jaar la waaye dund àdduna léegi mu jeex bis bu ma dee dajeeg sama boroom buur lay doon àjjana moo may xaar xaalidina fiha loolu mbokk mooy bushra loolu mooy tax ba coono yi ngay daj ci dund gi yomb ci yow comme suñu doom yi yal na yàlla aar leen mooy suñu doom yi nekk ci géej gi nekk ci désert bi nga dem ñoo xam ne nii espagnol yi dañuy am ay barrières électrifiées teewul dañuy risque di ko bët gars yi taxaw ak ay balles réelles di tirer seen kaw teewul da ngay gis vague cent personnes dem gars yi tirer tirer trente daanu ñi ci des dugg ku dugg jàpp ne texe nga lu waral loolu jàpp nañ ne rek su ma man fexee ba dugg Europe ak coono bu ma mën a daj su ma duggee rek c'est fini mbokk loolu mooy bushra boo xam ne moom bushra la bu kenn xamul lu mu doon am ma yow jullit da ngay am yaqiin ci sa boroom ci ne boo deeyaalee jébbulul ko moo di ne ne àjjana moo lay xaar moo tax mu ne bushra lil muslimin borom bi nag di wax ci téere bi nga xam ne ne ne tibyaan li kulli shay'in hudan la lenn ci lu téere bi di woote mu ne inna allaha ya'muru bil adl te maa ngi lay fàttali ne aay bi ñu jàng mooy aay bi gën a matale ci alquran ajma'u ayatin fi kitaabillah aay bi gën a tënk lii di ndigal ak tere ci alquran mooy aay bi nga tiim aay bi gën a màgg mooy ayatul kursi bi nga noonu aay bi lu ci yàllay wax mu ne xam leen ne yàllaa ngi digle ak maandute al adl maandute mbokk du yemele maandute mooy ku ne nga jox ko àqam li mooy maandute sa borom yàlla sa maandute diggante ak moom mooy jaamu ko bokk bokkaaleeg dara bu ko yemele ak kenn sa maandute diggante ak yonente yàlla bi moom ngay roy aw doxalinam ay waxam doo ko yemele kenn nga doog a ñëw nag maandute maandute xatta mi ngi noonu ah njaboot gi maandul seen diggante soxna yi maandul seen diggante ku nekk jox ko àq ba nga xam ne moom la yeyoo loolu mi ngi noonu àdduna boobu it bokk na ci maandu ci farata yi nga def ko yi boo ci yemee it yow def nga ak maandute yàlla waxoon na la julil juróomi julli julli nga juróomi julli koor naka noonu benn kaw kaw kaw arab ñëw na ci yeneen ci yàlla bi na ko waaw yàlla lu mu farataal ci man lu ko ah farataal ci yow day bés bu ne nga julli juróomi julli mu ne ko ak lan mu ne ko ah weeru koor jote nga woor mu ne ko ak lan mu ne ko boo amee alal nga génne ci zakat mu ne ko ak lan mu ne ko boo mënee nga dem màkka mu ne ko loolu la farataal mu ne mu ne ko maa ngi lay seede lii nga wax du ma ci wàññi dara du ma ci yokk dara nag daal di war jëlee moom dem na yeneen bi ne bu waxee dëgg de texe na bu waxee dëgg texe na farata yi boo ko defee def nga al abdul mu des nag al ihsaan ihsaan mbokk mooy la nga xam ne mooy la waroon def nga ko nga dolli ci nag ak njëkk dolli ci njëkk mooy suñu borom yàlla yow lu mu la santoon tisbaar jotee julil ñeenti rakka yow avant tisbaar nga julil ko ñeenti rakka naafila bi nga paree nga dolli ci ñaar zakat la la tegoon génne nga zakat teewul yaa ngi xool fu ngërëmal yàlla nekk nga def fa ca ihsaan mooy nga rafetal sa digganteeg sa borom waaye rafetal digganteem ak jaami yàlla yi kii la tooñ al adl mooy bu la neexee fayu ak nu mu la tooñee bu la neexee fay loolu adl la amma boo ko baalee ihsaan dugg na rafetal nga ki la defal teraanga nga delloo ko même teraanga wàccoo ngeen soo ko defee ne bu gën boobu nag ihsaan dugg na suñu borom yonente bi alei salaam ne ne katabal ihsaan mi ngi noonu fi kulli shay lépp lu mën a doon rek julit jublu ci ak rafetal ca la ñu waxoon ne même booy rendi sa xar sax rafetalal ni nga koy rendee gis ngeen loolu al ihsan ku nekk war a xool ku muy jëflanteel ci kaw suuf rek mu rafetal jëflante ba ñetteel bi mu ne wa ita izil qurba mooy ñu jox jege ñaale yi seen aq jege ñaale ñaar la ki nga xam ne daf laa jege ci mbokkoo ci deret mbokk kii da nga war a koo jox ak xam ak xam ci lan mooy lépp loo xamee ne nii teraanga la boo ko mënee defal war nga koo fexe di ko ko defal na doon loolu ci wax ju rafet alal ji nga yor nga xam ne am na ci aq nga séddoo ko ak moom di ko nemmeeku di ko dimbali bu nekkee jaaxle nga jàppale ko loolu mooy ki nga xam ne da ngeen jege ci deret waaye keneen ki mooy ki nga xam ne da ngeen ne jege ci wàllu diine wala wàllu xatta dëkkandoo ku mel nii dañu war a rafetal ci moom suñu borom mu ne wal jaari zil qurba wal jaari al junub wa saahibi bil janb képp koo xam ne sës na ci yow même bu doon ab yéeféer sax war ngaa rafetal jëm ci moom rawatin nag bu dee ne sa mbokk julit mi ngi noonu kon rafetal leen jëm ci mbokk gi rafetal leen jëm ci dëkkandoo yi ku nekk jox ko aq bam yeyoo ci yow ita isil qurba mbokk loolu kon ëmb na lépp lu baax lu nit door a def mu des na tere yi mu ne wa yanha anil fahshai wal munkar wal baghi yàlla mi ngi tere fahsha fahsha mooy ñaawtee fii la ci jiitu buñ ko waxee mooy njaaloo lu jëm ci bànneex yi njaaloo góor jigéen ya naan sangara yaak yu deme noonu al munkar nag mooy lépp loo xam ne yàlla da ko da ko araamal bàyyi julli munkar la bàyyi atte woo yàlla munkar la koor jot waroo munkar la naka noonu mboolem bakkaar yi nga xam ne doomu aadama da koy def day dugg ci munkar loo xam ne nii yàlla bañ na ko kuy borom xel bañ na ko gannaaw ba al baax yi baax yi mooy noonu xuloo yaag xeex yaag tuurante deret yaag jëlante alal yaag loolu mooy al baax yu ci diggante nit ñi lii suñu borom da koo araamal ci ñun lii kon mbokk da ngay gis aay bi ni nga xam ne noonu la tënkee ba nga xamee ni it mbokk bi ko yàlla wàcce ci yonentam nii la ko jëfe sallallahu alayhi wa sallam benn jigéen bu baax ci dañuy tuddee ay aristocrate mooy bànn maxzumiya famille bu tedd ci arab dafa sàcc bu mu sàccee ñu ne ah mais kii day wax dëgg yàlla ñu dagg loxoom dana nekk gàcceem nekk gàcceey ba famille ila axiri waa usaama te ngaa dem ci yeneen ci yàlla bi nga laajal ñu ko ndax amul ay gileem yu mu mën a joxe bañ bëgg a dagg loxo bi yeneen ci ya bi usaama ñëwee ci yeneen bi yàlla bi wax ko ko yeneen bi usaama mu ne li ma nekk ak moom yépp mosuma gis mer bi mu mer keroog ne ne dafa dem ci ko minbar bi mu ne ay yéen nit ñi maa ngi dégg kuy ne sàcc na ñu war a dagg loxoom ñu ne du ñuy maslaa pour mu jotu mu ne lii moo alagoon bani israil bi yàlla wàccee ci ñoom seeni ay luwaam bu baadoo la defee jiye ñu teg ci moom luwa yàlla boo ab nit ko tedd defee ci ñoom jiye ñu mas la bàyyi ko mu ne wallahi maa ngi leen di waatal ci yàlla ne fatima bintu muhammad bu sàccoon man mii may dagg loxoom bokk lii mooy maandute abdullah ibn rawaha dem na yonente bi alei salaam bi mu ubbee xaybar di dëkk ci Arabie saoudite juif yi fa nekk mu siñeenteeg ñoom benn pacte léegi continue leen bay seeni tool continue leen dëkk dëkk bi sax ci seenug yahud waaye lu ngeen fi bay ngeen xaaj ko genn wàll gi ngeen indi ko Madina daal di fa yónni Abdullah ibn Rawaha pour mu nekk di war a contrôler loolu bi mu ñëwee yahud yi teeru ko teral ko jël ay cadeau yu bëri jox ko mu ne ko waa lii lu mu ne lii lu mu doon ñu ne ah dañoo bëgg rek bis booy def partage rek ah nga bàyyi ñu xel rek ay mi nga noonu mu ne leen xam nga lu ma leen di yëgal gis nga ki ma jóge mu yeneen yàlla muhammad moo ma gënal ci lu yàlla bind gis nga yéen ñii yéen laa gën a bañ ci lu yàlla bind demoon atte ay mbaam kooku moo ma gënal nekk gi yéen waaye maa ngi leen di seedeel ne bëgg gi ma ko bëgg ak bañ gi ma leen bañ du tax mukk ma ñàkk a maandu seen diggante yahud yi li ñuy bon bon na ko ah lii day moo tax asamaan ak suuf taxaw te mbokk loolu la ñu sant julit maandu tellu day mbir mi day dal sa kaw day dal sa waajur kum mën a doon maandul wa aqrabu li taqwa lii mbokk da ngay gis ne histoire bu islam nii la demee te mooy lépp tege ci maandute ay bi tamit gis nañu ne lii siiw ci ñun tey mooy chia chia mooy ay nit ñoo xam ne tasaaroo nañ ci àdduna bi pour ñoom ñi yiis ci jaamu yàlla yi mooy sahabatul kiram gannaaw ba ñu ñuy tudd ahlu sunna waaye jiitu chia boobu di am wala boog bi muy sosu am na leneen lu mu sosonoo mooy ñoo xam ne dañu bañ ahlul bayt mi ngi noonu nga xam ngeen histoire amoon na diggante ki nga xam ne mooy Yazid doomu Maawiya jàppante na ak Useynu xeex am seen diggante ila axiri mu am lenn ci buuru bani Umayya suñ masaan di xutba bay jeexal di rëbb ay rëbb yoo xam ne mi ngi jëm ci ahlul bayt te nga gis rek mbokk seytaane fi mu mën a yóbbu doomu aadama famille yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi yàlla dogalee Omar ibnul Abdul Aziz nekk amirul muminin bi mu ñëwee ba fi ñu waroon a ñaane ca buur yi ko jiitu woon daan wax lu ñaaw moom mu daal di jàng aaya bi daal di ne inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun depuis jamono boobu ba tey imam yu bëri dañ koy tëjee la nga xam ne mooy seen xutba te lii rek doy na xutba nit ñi ñëwoon ñëpp jumaa ñu fàttali leen aay bi rek doy na xutba mi ngi noonu loolu mi ngi noonu borom bi nag mu ne kon maa ngi leen di kopp ngiree ngeen doon ñoo xam ne da ngeen di fàttaliku kon mi ngi noonu Cheikh Ousmane
فأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أموالكم أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون
barakallahu fikum suñu borom mu ne wa awfu bi ahdillahi ida ahadtum ay way matal leen digub yàlla bi su dee diggante ngeen wala tanqudul aymaana ba'da tawkidiha ay way bu leen firi giñ yi ngeen giñante gannaaw bi ngeen ko feddale wa qad ja'altum allaha alaykum kafila te defan ngeen yàlla mu nekk koy garanti ngëm googe day aji seede ca kawam inna allaha ya'lamu ma taf'alun yàlla day xam na li nga xam ne yéen a ngi koy def wala takunu kallati naqadat ghazlaha e way bu leen mel ne ki nga xam ne dafay firi la nga xam ne moom la doon rabb min ba'di quwwatin ankasa gannaaw ba mu ko feddalee ci kattan rabb ko rabb gu dëgër ba pare wëlbati ko nag di ko firi buum par buum ankasa tattaxisuuna aymanakum daxalan baynakum ngeen di jël seen waat yi ngeen di waat mu dugg daxalan muy lu ngeen di dugale ak wor mooy lu ñuy dugal muy nekk ak wor baynakum seen diggante an takuna ummatun hiya arba min umma ngiree benn xeet dafa gën a kawe beneen xeet ba ca des innama yabluukum llahu bi loolu day xam ne ne yàlla mi ngi leen cay nattoo wala yubayinanna lakum yawma alqiyama doonte dañ leen leeralal ñeel leen yawma alqiyama ma kuntum fihi taxtalifuun la nga xam ne nekkoon ngeen ci di ca juyoo walaw shaa allahu la jaalakum ummatan waxida su neexoon yàlla da leen di def ngeen nekk benn giir benn rek walakin yudillu man yasha waaye yàlla mooy sànq ku mu neex wa yahdi man yasha mooy jëbal ku mu neex wala tusalunna amma kuntum taamaluun te dañ leen laaj la nga xam ne nekkoon ngeen ko di ko jëfee mi ngi noonu mbokk suñu borom dafay wax ne jullit heure bu diggee ngallaway digub yàlla ba nang ko matal suñu borom dañoo digganteeg moom ne ko yàlla iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in di ko rappeler suñu bopp ay yoon ci bëccëg bu nekk kon nag loolu nga dig digganteeg yàlla e way matal leen ko bul jàmm mukk keneen ku dul yàlla bul dimbali ko mukk keneen ku dul yàlla loolu mooy lu jëkk gannaaw ba yëpp suñu borom mu ne dig bu ngeen mën a diggante ca tudd ca turu yàlla ngal la way matal leen ko te ay jullit dañoo waroon lu ñuy signante ci contrat ci pacte ci lu mën a doon ñu xam ne yàlla mooy seen aji seede comme la borom Moussa waxoon wallahu ala ma naqulu waqil su ko defee booy wax ak jullit na ko dinaa def lii bu soobee yàlla kay dinaa ko def moom it mu ne bu soobee yàlla ngeen tudd turu yàlla ba pare nga wëlbatu ko wor bul jàpp ne sa mbokk jullit bi nga wor waaye xam nga def nga dili wu rëy mooy yàlla mi nga jëlul seedeloo ko moom it mu wóolu la ngir ngir ab jullit la ngalaway loolee na nga ko bàyyi xel bu baax te loolu mbokk bokk na ci wàllu commerce bokk na la ca gën a doy waar it mooy wàllu sëy nga xam ngeen ne sëy yi dañ koy takk ci kaw kaddu dañ koy takk ci kaddu ndigalu yàlla ak seedaloog yàlla loolu moo tax jigéen boo boo demal jënd ko un milliard aram na ci yow ngay séeg moom kon da ngay dem ñaan ko ci kaddu yàlla ñu may la ko ci kaddu yàlla yonent bi alayhi salaam mu ne istahlaltum furujahum bi bi bismillah turu yàlla moo tax mu dagan la ñu wóolu la ci loolu ngalla way kóolute googu yi it doonal ku ko matal noonu lay dem ba bépp contrat de travail buy am ci jëflante bu mu mën a doon ngalawaay julit ñi na ngeen ko doon ñu koy matal ca xam ne yàlla li ngeen def xam na ko suñu borom joxe misaal ci ki nga xam ne dafay fas kóllëre ci turu yàlla ba pare wor nee na mi ngi mel ni ndaw si xëyoon di rab di rab di rab di rab di rab ba timis jot léegi mu daal dina commencé waat la mu doon rab di firi di firi di firi di firi di firi di firi waaw du di firi bu ko defee kon loolu mbokk da ngay gis ne dafay doon loo xamee ne nii ak ndaf munta passé loolu ñàkk temps munta passé loolu ñàkk alal munta passé loolu ndax jullit heure boo joxantee dig ca yàlla tax am nga xéewal gu rëy mooy soo ko matalee rek tuyaabu ju rëy mi ngi lay xaar mi nga noonu lazina yuufuuna bi ahdihim wala yanquduuna al misaaq suñu borom mi ngi waajal ajjana ñi matal seen i dëkk te duñu firi mukk seen seen lañ ko lërante borom boobu nag subhanahu wa taala mu ne loolee nga xamee ni yéen a ngi koy def di jël la nga xam ne mooy seen waat waat gi nekk ak kóolute xeet bu ngeen dem waatal leen ñu gëm leen wóolu leen ci seen biir su ngeen gisee xeet bu ëpp doole boobu ngeen wor ñi dem ànd ak ñi mbokk loolu lu mu leen di fàttali yéen waa Sénégal du mooy li ñu tuddee transhumant day mbokk loolu mooy transhumant an takunu ummatun hiya arba min umma koo xamee ni nii moom intérêt rek lay topp seetul dëgg seetul neen fu mu yëg ne ñee ñoo ëpp doole fu la ëpp intérêt mu trahir ñii dem ànd ak ñële mbokk loolu du mbiri gor du mbiri diine ci du mbiri suñu aada yi maam ñun sénégalais waaw yarub tubaab moo ñu ko fi indil waaye mbokk julit day sàmm kaddoom julit day bañ ak wor suñu borom mu ne gis nga noonu ngeen def rawatina yéen nafiq yi bu ngeen yégee ne noonu lislaam yi ñoo jekko ngeen roccee ko ci suuf dem waatal leen ñu- ñu gëm leen topp leen loolee mbokk xam leen ne nattu la bu leen yàlla di nattoo yàlla nattoo léeg-léeg di jël ak ndam di ko jox yéeféer yi ngiree xool naafiq yi seen mbiri feeñ waaye su defoon yàlla yéen ñëpp benn xeet la leen ci def yàlla nattoo ñi ngëm nattoo ñi ak kéeféer waaye bu ko neexoon mu def leen benn xeet ummatan waahida borom boobu subhanahu wa taala mu ne nag bis mi ngi ñëw yéen ñépp ngeen teew si yowmal qiyaama borom bi leeralal leen lépp li nga xam ne nekkoon ngeen ci di ko juyoo borom bi subhanahu wa taala kon mu ne mooy jubal ku ko neex mi ngi noonu borom bi subhanahu wa taala yépp nee na mooy réeral ku mu neex waaye daañ leen laaj li nga xam ne nekkoon ngeen ko di ko jëf loolu mbokk lu mu ñuy jàngal mooy yàlla day jubal yàlla day réeral ba pare mu ne dinaa leen laaj loolu day wane ne njub ngam ñuy jubal dafay aju ci lañ jëfoon doomu aadama da ngay góorgóorlu tege yoonu njub yàlla jàppale la nga dem yazidu llahu lazina htadaw huda ñay jub jublu yàlla yàlla jubal leen amma ñi nga xam ne dañoo gis yoonu yàlla bi ñu ne ko fa ñukk topp seeni bànneex borom bi mu ne falamma zaagu azaaga allahu qulubahum ban jéngee laa jéngal seeni xol loolee kon kenn du lay rek ne ah yàlla jubal ko neex yàlla réeral ko neex déedéet yàlla jubal ku ko neex sabab lul ngir nga bokk ca yàlla réeral ku ko neex sabab lul ngir nga mucc ca lii lañu suñu borom wax xam naa Cheikh Ousmane ñu dalu leen tuuti rek comme tey mooy dernier tafsir bi
ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزيل قدم بعد خروجها وتذوقوا السوء بما صددتم وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى ومؤمن فلنحيينه فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون
jazakumullahu xayra suñu borom mu ni wala tattaxidu aymanakum daxalan baynakum bu leen jàpp seen waat yi ngeen di waat mu nekk lu ngeen di duggante ci seen biir di ko jëfandikoo ngir dama na duggante seen biir fa tazila qadamun ba'da thubutiha kon de dana tarxiis aw ndëggu muy les pieds fi ngay teg sa tànk gannaaw ba mu saxee gannaaw ba mu saxee wa tazuqu su'a bima sadattum an sabilillah ca ko ñi da ngeen mos lu bon ci ni ngeen doon fegaate ci yoonu yàlla walakum azabun azim ca dana leen ñeel mbugal bu mag wala tashtaru bi ahdi llahi thamanan qalila ewaay bu leen jëndee dig bi leen yàlla dig ca àjjana lii di njëg gu néew innama inda allahi huwa xayrun lakum la nekk ci yàlla moo gën ñeel leen in kuntum taalamuun su ngeen nekkoon di aji xam maa indakum yan fadd lépp lu nekk ci yéen ci àdduna day jeex wa maa inda allahi baaq la nekk ci yàlla nag day sax wala najziyanna alladina sabaru ajrahum daañ fayit ñi nga xam ne dañoo muñ seeni pay bi axsani ma kaanu yaamaluun ci lu gën a rafet li gën a rafet ca lañ nekkoon di ko jëfe man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min képp ku jëf lu baax góor nga wala jigéen nga ah nga boole ko nag ak ngëm fala nuxiyannahu xayaatan tayiba daañ ko dundal dund gu teey wala najziyannahum ajrahum bi axsani ma kanu yaamaluun ca it daañ leen fay seen fay ca la gën a rafet ca lañ nekkoon di ko jëf ñi ngi noonu mbokk suñu borom mu ne yow julit bul bokk mukk ci ñi nga xam ne xeet bu mu gis ne ñoo ëpp intérêt ñu dem waakal leen ne ci ñoom la ñu bokk ngiree mën a profité ci ñoo ci loolu loolee day tax ba seen tànk tarxiis gannaaw ba mu saxee ca mbokk ngëm yàlla mi ngi noonu julit mooy ki teg tànkam ci siratul mustaqim heure boo demee nag ba farandoo ki yéeféer suñu borom mu ne mi ngi mel ne ku doon dox mu rek mu tarxiis tarxiis nga daanu nga perte nga mu ne bu boobaa da ngeen mos lii di mbugal ci li ngeen doon fegge ci yoonu yàlla mbokk dem di collaborer ak yéeféer danger bi ci nekk mooy yow yéeféer yooyu yaa leen waroon a woo woo ci lislaam waaye intérêt yi nga gis ci ñoom nga dem di làqatu di fara farandoog ñoom di leen xamal ne yéen yéen a nekk ci dëgg te loolu di ay musiba boo xam ne gis nañu fii benn ci suñu kilifay réew déclaration bu jéggi dayoo boo xam ne def na ko ci kanamu presse internationale tagg yahud yi tagg yi gën a kawe daa di wax wax yu doy waar yu doye di ci suñu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax ko ca ka nga xamee ni nii mooy maamam ji ismaila naka la sosoo dem ba ne sax pourquoi nit ñi di wax naan aj aj fu aj jote ñu naan màkk ku leen wax màkk lañu war a aje ca suñu borom tudd bakka ca bakka moo gën mi ngi gën a jeyoo bukka kon mur de lamentation bi jiixu yi nekk loolu sax la gën a jege mbokk du loolu xam ngeen ko waay loolu mooy daxalan bi yàlla di wax jàpp ne ñii amal nañ la intérêt te it booba jàppoon nañu lobby juif ñoo yor alalu adduna ji ñoo yor presse adduna bi jàpp nañ ko buñ ko jàppalee dana nekk président de la république waaye miskin fàtte na booba ne qulillahuma malikal mulk tu'til mulka man tasha fàtte na ne nguur yàlla koy joxe ala kulli xaal loolu benn misaal la ci képp koo xam ne jàpp nga ne sa diine ji da nga dem ci ay yéeféer gi dee nga am ut fa tëddaange suñu borom mu ne ay yabtaxuuna indahum al izza fa inna al izzata lillahi jamia da ngeen di sàkku ji tëddaange ci yéeféer yi xanaa xamu ne tëddaange yépp ci loxo yàlla la nekk borom bi subhanahu wa taala nee na kon ñooñu nga xam ne dañu waroon a woo yéeféer yi ñu wëlbatiku di leen tagg ba yéeféer yooyu duñu xemmem dugg ci lislaam boobu suñu borom subhanahu wa taala mu ne dana leen teg mbugal mu màgg mu wëlbatiku waat ci julit ñi ne leen ay yéen julit ñi li leen yàlla dig ci àjjana bu leen ko jënde njëggu néew xam ngeen luy njëggu néew mooy dundoon nga un million d'années ci kaw suuf moom lépp lu nekk ci kaw suuf musoo feebar musoo am problème wallahi bu dee loolu nga am mu xañ la àddina jënd nga ko njëggu néew nga noonu loolu waxumaa nag xel xalaatul ngeen nit am loolu borom bi mu ne ci loolu mbugal bu tar mi ngi leen di xaar bu leen jëlee njëggu néew aljanna lépp loo xam ne dafa nekk ca yàlla moo gën ñeel leen moo ko àllaaxira moo gën àdduna àjjana moo gën àdduna su doon nekkoon ngeen di xam mi ngi noonu misaal du doy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na kenn ci yéen su bëggee xam naka la aljanna gën a àdduna na dem géej mu jël baaraamam samp ci ndoxu géej bi li taq ci baaraamam mooy xéewlu àdduna la des te géej ga loolu mooy xéewlu aljanna kon mbokk innama inda allahi huwa xayrun lakum moo gën ci yéen barab bi mu ne lu ngeen mën a nekk lu mu yàgg-yàgg day jeex woykati ndakaar yi daanañ ko woy bari la bari la bàyyi ko gannaaw néew la néew la bàyyi ko gannaaw jeex na lu ngeen mën a yor ci xéewal day jeex am maa la ne ci yàlla nag day sax mbugal la du jeex ba faw xéewal la du jeex ba faw loolu la njabari firaw na yi waxoon kaay leen farag man ma jegale leen jox leen nguur gaa yi gis dëgg topp dëgg mu ne ko dinaa leen rey rey rey bu metti ñu ne ko loolu neex defal yow say def fii la yem wallahu xayrun wa abqa yàlla nag moo gën ca mooy sax bokkale nekk àllaaxira mooy sax borom bi nag nit ñi muñ ca loolu it mbokk ko muñ moo ko man adduna ju teew ba neex yu teew nga xalaat àllaaxira ñii borom xel yi muñ ñoo ko man mu ne ñi nga xam ne muñ nañu ba adduna yóbbuwu leen muñ nañu ba def la yàlla digle danaa leen fay seen pay ca la gën lañ nekkoon di ko jëfee borom bi subhanahu wa taala tëje aaya boo xam ne nii wax dëgg yàlla neex na loolu ñu tëje ko suñu tafsiru koorug ren borom bi daal di ñuy woo góor ak jigéen daa di ne xam leen ne képp koo xam ne def na lu baax def na lu baax moo luy def lu baax lu baax mooy la dëppoog sunna ba nga koy def yàlla tax loolay lu baax na doon kooku góor la na doon kooku jigéen la te bi mu koy def boole na ko ngëm yàlla ngëm yàlla suñu borom mu ne danaa ko dundal dund gu teey bokk dund gu teey mooy nga am bànneexu xol waa ji ma nga dëkk wili ngara ci ay néegu ñax ci lalu tagar dund gu teey mooy lan bu dee góor a yàlla may na ko soxna bu ko bëgg soxna si yàlla may na ko jëkkër du ko bëgg may na leen doom doom doom doom yoo xam ne doom yu leen bëgg la lañu am akas néew ci alal néew ak néew ak bax yi doy na leen ñi ngi nekk jàmm bu jaamu yàlla jotee ñu jóg jaamu yàlla yàlla fegal leen fitna mbokk lii mooy dund gu tey da ngay gis ñu nekk ci gratte-ciel yi nekk biir New York ñaata tonne de drogue la ñuy naan pour mën a nelaw ñaata fitna moo fay am ñaata tentation de xaru moo fay am mbokk loolu mooy dund gu xat amma dund gu tey yàlla nga koy jagleel ñi gëm di def lu baax bala ko ngëm góor ak jigéen mu ne loolu fii ci àdduna la danaa leen may al amn may leen dund gu tey ci àdduna allaaxira nag bu ñëwee ma faye leen lu gën ca la nga xam ne nekkoon nañ jëkk a jëf ca mooy ajjana yu kawe ajjana yu tedd ya ñu ngi ñaan suñu borom subhanahu wa taala yal nañu yàlla boole min alladina amanu wa amilu salihat yal na yàlla defal ñu adduna bi muy nekk jàmm ci ñun defal ñu àllaaxira mu nekk jàmm ci ñun yal nañu boole ci jaamam yi ko wéetal di ko jàmm duñ ko bokkaaleeg dara yal nañu boole ñu gëm ab yeneen tam topp ko sunnaam duñ ko wecceeg dara yal nañu yàlla boole ñu gëm alquran di ko jàng guddi di ko jàng bëccëg yal na ci naatale suñu dënn yi leere la ci suñu kër yi yal na yàlla defal ñu ko muy suñu imam ba tabbal ñu ci addinaam yu kawe ya yal na alquran yéegi yéegi ñu ba yégg lañu firdawsil aala yal na yàlla wàcce jàmm suñu réew wàcce ko ci réew moo leen julit yal na yàlla gindi suñu ndaw ñi teg leen ala siratul mustaqim yal nañu yàlla musal fitna yi biir ak fitna yi bitti yal na yàlla rafetal suñu mucc ñun ñëpp mu defal ñu àjjana suñu wàccuwaay allahuma rabbana atina fi dunya xasana wa fi laxirati xasana wa qina azaba annar rabbana zalamna anfusana wa in lam taxfir lana wa tarxamna lanakunanna min alxasirin ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين خمنا إن شاء الله دني لب question yi ba dajawaat ñu fi di fat ah benn bu baabu njaay bi borom xam si xam si diine waaw murum koor mi la yor voilà nañ ko wëñ ndax ndax mu ne ñoom murum koor mi ñoom ñu nekk amee ala kulli xaal muurum koor yow mi nekk Amérique bokk na la nga xam ne mooy maslaha mooy nga génne ko xaalis nga génne ko xaalis borom xam-xam yi depuis Omar ibnul Abdul Aziz Abu Hanifa ak ña ànd ak moom nee nañ mënees na ko génne xaalis soo ko génnee xaalis gis nga ko fay faqir jox nga leen ko gisoo ko yónnee ko sa réew ñu joxel la ko fii loolu moom mooy mbir bi non su dee foofu cinq mille francs lañ koy kii ak ñun seen jamono nekk Sénégal ban ban taux lañ ciy jël ku nekk fa nga nekk taux boobu ngay jël yow mi nekk Amérique lay dundal waa Amérique taux boobu ngay jël ki ne Sénégal lay dundal waa Sénégal taux boobu lay jël mi ngi noonu mbokk julit jot nañ ay xabaar yu wóor ci ne waa Arabie Saoudite gis nañu weer bi loolee kon dana ñu tënk ñu ne insha allah suba mooy nekk korité daan taxawal fii julli iit bu neuf heures et demi jotee di ñaan yàlla subhanahu wa taala yal na yàlla boole nangul ñëpp sunu jataayu takkusaan bi koor yal nañ ko yàlla dajale koorug déwén defal ñu aafiya fi dunya wal axira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain